mutuelle isolé yi nak li tax ñun ñu japp ne dafa am solo ministère bi accompagner leen moy dafa bok ci li xex luy luy gëna jëmmal luy gëna renforcer inclusion financière mais surtout inclusion sociale ndax tay ñëpp xam nañ ne ñi ëpp ci réew mi ñi ngi ci secteur informel di jóg ka daanu te mbas mi bi mu ñëwee loolu la gën a laal ndax dafa am ay mesures yu bari yuñ jël moo xam couvre-feu bi la moo xam fermeture marché yi kon dafay jaadu ñu mëna a ñëw fekk ci leen fi ñu ne indil leen ndimbalu état bo xamné ne dina leen permettre ñu mëna gëna yeggali seen activité mais également ñu mën ko sam jàngat bi nga xamné ne def nañ ko daf ñuy gëna a importance du secteur microfinance ak économie sociale et solidaire ndax bu ngeen fàttalikoo marqueur gouvernance su président Macky Sall moy la fin des injustices sociales mais également l'équité territoriale lolu nak pour mu am

activité ou bon, xam mutuel yi wala statut Nous yi ñu mën te les buñ anam aussi service bi ñuy nan la donc pour ñu mën ko mais inclusion bi ñuy wax secteur bi euh, dana visite bi permettre nañu ñu microfinance euh, activité de proximité la proximité nak moy wacc à la base loolu lañu def ni té incha li nga xamné mom lañuy la mën di gëna firndel rek moy programme bi mom euh, fep fo xamné war na fa dem dinañ def suñu kéem carton pour mu mën yegg ba ci askan bi mais surtout ñu recueillir préoccupation askan bi ngir mën ko xaatim ci loi d'élaboration de d'orientation de l'économie sociale et solidaire boobu ñu nekk di def